jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen nuyu di leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen wax na nag bu ngeen ñu gisee fii xam nga ne wutal nañoo keroog fañ toogoon ndax keroog damaa seet si sama sama waaj yi mu yóbbu ma ca xaw ma ca toole la ma yóbbu xaw ma ca ñax ya la ma yóbbu xaw ma keroog dañoo tàpp ba bëgg a dee keroog damaa yaakaar bu fi jógee est looloo que loolu ma sibiru sax li nga def tegaloo ko fenn nuyu naa waaw fay lañ la Baye bi di la nuyu di la siyaar di la jox sa waajo waay xam di ñaan Sénégal jàmm tey wax a'uuzu billaahi bismillaahi ni wali yàlla ñu ngi siyaare ñëpp waaw ñu ngi ñaan Sénégal jàmm di ñaan si làmb ji jàmm xam nga di di sunu ministre des sports luñ ko tabaat ci xam ci boppu ministre des bi di ko ñaanal jàmm di ñaanal kullu kullu mbër jàmm di ñaanal suñu benn mbokku taale bi si ko rien bu wàcc ñu koy bambataal di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di wax gouvernement bi nañ jàppale booy dem si géej gi di mbëkk ndax Sénégal dafa metti moo tax gaa yëpp dugg si gaal yi di mbëkk ji ngir tere yàlla te teral yaay teral baay muy man ak keneen ak keneen ku si gis gaal leer na la ni boo demee egg da siy jéem a dugg ndax lan bu metti ñu ñaan yàlla yàlla def jàmm Sénégal. lan moo euh, tey ñu ñëw ñu ñëw nga nañu nañ dem saal nga tàngal yaram. non waxuma yi sax tàngal yaram avant loolu man dama waxoon sax du ma ñëw dama waxoon du ma ñëw ndax man aw ma yenn jot yi daal. yenn jot yi dañu ko amul ñun dañoo wax ne góor guy nekk si làmb ji kuñ ci yàgg ñun kuñu kuñu ku ñu yabul ñun yaboo ñu. Mhm. waaw kon yow leer na la ne dama laa waxoon ne la duma ma du ma ñëw. depuis deux heures. ba ba ba ba cinq maa ngi fi door a ñëw. dama waxoon carrément duma du ma ñëw di waxtaan ay waxante ay wax waaye itam boo nekkee su ma nit weñ suma loxo duma si mën dara. ay am ay wax ay am delloo te ñun ñu xamante suñu biir moo taxoon moo waxoon du ma ñëw. loolu sax bëgg ko woon ñëw damaa bëgg waxtaan ndax lii moom làmb ku ne xam ne dañ koy waxtaanee. état de forme ma la gis nii amuloo combat bëgg ñu waxtaan ci damaa ñëw defaloo fi da dangaa yëngal tuuti ñu bay siit nii lan la. mais day combat wala ñun ñun ñun yàgg nañu dee combat waaye nekkuñu si dara nekkuñu si dara lii boo gisee état récupéré la. ñun maanaam nekk guñ ci dara tàmbalee sax barki maam seeraama faal soo gisee ñu yëngatu ñàkk ni fii moo tàng rek waaye man moom bu fekkee su ma diggante ak yàlla laay wax man tàmbalee gu ma wax dëgg yàlla ak waaw su may su ma amee doole damay jeex instant amaguma doole damaa nekk def ay étirement pour yaram njërum galaas def fi mu toll waaw waaw ñun ñun ñun juddu am doole doole dañ kaa nàmp suñu soowu yaay ñu nekkuñu ay ay ay ay comme li ma koy waxee yeneen gars yi ay kóokali maanaam ñun dañoo judd ñun dañoo judd nekk laadu ñun xamal la nañu wut ci làmb ah. ñun koofur rek la ñuy wut ñun doole am nañ ko ba pare daa ñoo xam dañuy wut doole ut koofur ut physique leneen nag leneen ñun physique rek la ñuy wut ñun am ah, doole bokkook ñoo xamante ni balaa ñuy balaa ñuy mën a am maas naan doom ñun su ndayee ñu sàkkal suñu ndayee ñu sàkkal doo kii doole ñun suñu doole suñu weenu yaay lañ ko jëlee soow mi dafa pire nekkul soow mu xermbet waaw ah, nekkul soow mu xormbet quoi nekkul ay njaraat ak lenqal yi te da ngay bul fàtte na ñun ay ta ñun taaw lañ tamit quoi ñun dañoo jël sow mu. la ca bu baax bi. waaw ñu sees doolu jël lenqali di quoi. mais sax xam nga dama laa namoon. mais yow boo ma namee ma ne la da ngaa jógee man yow même pas dix jours lañ tourné émission. non ah, lañ tourné émission ma nekk fi depuis deux heures ba cinq heures jot lamb ji tànk tamit dafa dëgër. tamit mënuñoo toog suñu fan si dañuy gis dëkk bi faaw tamit ñuy waxtaan. parce que xam nga la moom fi andi. waaw xam naa ko. non gars ma topp dama jëli Kara dañ koy nam dafa bokk ci waxtaan léegi rek am na ko ma woo ma Liou Diane na ma. waaw ndeysaan man nag man nag damaa waxoon du ma wax. ndax sëñ bi man fii ñu toog Fass Mbao la damaa toog 72 heures mbéy samay moo yi ma xam seen làmb xam nañ ne man du ma du ma du ma du ma ngaaga ci làmb moo taxoon bu fekkee interview yi dafa bëri rek bu yàggee dañ lay am feneen fu ñu lay séentoo te doo nekkoo foofu yee. mais est-ce xam nga ne dafa am ñoo xamante ni dañ laa bëgg dañu la bëgg te bu ñu déggee yenn yi ci yow du leen neex ba tax na bu ñu mënu am sa numéro ñu si numéro moom xam nañ ne latte na ci dëkk bi dañ lay topp di la woo di la woo te ñun moom yàlla dafa dañoo baaxoo lenn lépp loo xamante ni dafa bokk ci làmb wala lépp loo xamante ni làmb da ko soxla dañ koy bëgg di ko defal suñu téléspectateur ak ñoo xamante ni dañuy suivre Wassare Làmb moo tax lépp lu ñu sant lu nekk rek bëgg di ko defal ndax ki lay seetaan te abul ki lay seetaan te abuloo ko bët fayuloo ko defe naa ne kooku lépp lu mu bëgg lu nekk war nga cee taxaw. waaw loolu dëgg nit ci amul lu dul ku ko bëgg ndax dañoo ne xaaju benn benn bu la bëgg jar naa liggéey ba ba dee daal ngir ñi la bañ waaw man xam naa ne man am naa ay soppe waaye ñi ma bëgg man maa leen gën a bëgg barki maam seeraama faal ndax man mii nekk benn genre faxiir ñu am na ñu ma bu dee benn bu ma bëgg sax ki ma bëgg maa ngi koy wax na ko fii la ëppee te maa ngi ñaanal yàlla ñi nga xam ne nii dañoo am xoolu kiñaan te yaakaar naa ne Sénégal xoolu kiñaan dafa am ñàkk comprendre am daal waaw ñuy ñaan yàlla ñu comprendre ñu comprendre rek waaye man xam naa leen li nekk suma xol wër na ma Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul ku ko xamoon nag mooy moytu ndax aw ma xoolu kiñaan man xam na laay dund nit dee na yàlla na ko yàlla yërëm nit dem na États-Unis ma ne yàlla na tekki ñibbisi nit dafa feebar yàlla na wér sunu koñ li may wax na man leer sama koñ penante yi ma fa lijjanti ak say tas yi ma fa lijjanti ak may non jarul wax sax jarul wax. sa xol man sama koñ sëñ bi keroog tourné nga fa émission. dañoo ne bu ne nit baax na nañ wax ba xam mbokk yaa ko wax. bëgg nañoo ñibbi mu tëñu. sëñ bi barki alxuraanu karim barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp du ma vaurien jegewu ma ko sax du ma vaurien tàppet wóor na borom daaru. keroog damaa ñëw seet si la. ñu waxtaan ci làmb waxtaan ci góor jigéen yi waxtaan ci CNG waxtaan ci moo mu andi coow def buzz ku nekk gis si boppam ba tax na keroog da nga wax ba laal ki nga xamante ni mooy am ama neex muy mbër di ndaanaan di champion keroog tamit bi nga ko laalee ñu gis mu am nu mu waxee ba woo fii la ko waxee ci wasaare làmb euh, maa ngi ci nuyu ki nga xamante ni mooy ATM dem fekk ko fa mu nekk ci états uni waxtaan ak moom moom ay baatu génnee si ni ma ko déggee daal maanaam dalay conseillé di la ñaax. ba pare nee na duma ma du ci jaar sax nag damay ànd ak ki nga xamante ni mooy aadama ñu dem seetaani ki nga xamante ni mooy ama neex te dellusiwaat aadama nañ dem te ñëw. Kara doole moom génn na ak dooleem ak cawarteem lépp nee na yow fi mu nekk nii yaa ngi yàq deru mbëri nee na ni nga nekkee ci ci ci moo di baleeg lu nekk dugg ci nee na yow loolu waroo ko di def en tant que champion loo koy tontu. non du ma ko tontu dama koy wax naka mu jéem a dimbali boppam mu jéem a mel na nun mu jéem a am comportement nit mu jéem a silwise mu dem jàngi communication loolu bu amul ci nit leneen ngay doon jéem a xam ni ñu baax jéem a àndax nit ñoo xamante ne bu na tenee dina la dimbali fii kenn mënul ko suñu borom du ma wax turam ndax dégg naa li mu wax yëpp moom xamul sama diggante Mouhamed tey bu soñoon ñëw fi ñu nekk nii ndax fii doon dëkk boo xamante macha allah fenn jommuñu mais nit bul gis bul gis bul gis lenn rek na damm na na tël na damm na xamul sama diggante Mouhamed bi may ànd ak Mouhamed 2014 laa xam ne amoo ma 2013 ba tey mu ñëwee états fii moo may fayal saal moo may fayal box mooy box bu may ñibbi mu defal ma taraanga ma ñibbi di ma jàppale si lu ne mu nekkee Sénégal ma taxaw dama jàppale kon kooku du tey lañ ànd ngor la ma jëkk ma delloo ko ngor mu doon ku baax Mouhamed moo géet mu doon nit ku baax nit ku teey nit ku solution la ma gis si moom rek laay wax waaw tax la mooy lan mooy sa problème ak Kara Dollé ban ban problème ngeen am wala wala wala li mu gis ci internet bi rek moo tax mu wax ak yow loolu wala da ngeen amoon problème avant. non non amuñu masuñu am problème xëy na peut-être li mu gis moo tax mais li ma def noonu du garaawul dama bala rek ndax Mouhamed dane bala leen ko nee na làmpay tàkk ne du xaalisu miraas na ngelaw fayu làmp bala bi nag comme te mu ngi baraat baatare Aida ma jël bala gi rek da bala ko bu ko defee Euh, look bi mu bëgg mu gën a génne loolu moom si dugal. kon li nga doom bale ni dara demul si sa poos. non ndax ko doon bale ngir Aida Samb. man tamit pour man reg naa dem tey doog a ñëw. milliard ak dërëm laa yemaale. Mm-hmm. am déet. ba léegi. Mm-hmm. donc yow mooy loolu. noonu la demee rek gis ngeen ni ko Amaneex waxee dégg nga li wax nee na nga jéem a dimbali sa bopp am comportement nit jàng communication. te nga fexe am xarit yoo xamante ni nii mën nañ laa dimbali. comme si daal moom dala dala dala dala sous-estimé wala boog man xaw ma moom nan la ko gisee daal ba tax li nga wax xëy na peut-être moo ko poussé mu mu mu lay yedd man xaw ma daal naka laa ko mën a expliqué ndax dégg nga li. waaw mais mais mais Amanekh moom ndeysaan dafa baax rek sëñ bi man yoruma man du ma faxiir man kër laa yor Amanekh boo demoon seen kër da ngay fekk mu def ay raxam di def wala ay magam man kër laa yor yor su may rakk yor yaay. sàccuma fenuma duxuma geesuma naanuma sàngara ànduma kuy sàcc ànduma ku bon sëñ bu ne am ay xarit yu baax xarit yu baax man teweesu sam papa laay njaay ku am ma madame Tamaro Seydi Seydi Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance kooku bonul nga am Daouda Sylla loo joxoon ñu dagg ko comprendre nga ma am suma grand sama grand yaro baax mbër lu ma bëgg mu nekk mu fekk si ma si xam nga et cetera et cetera ma bari ñu may jàppale am ay Babacar Dia am ay Xaarim Gueye ah mais sëñ bi kon yow man lan laay daw bay daanu di uti ku baax mel ne man dama bon is ay déglu. xool nee jàng ni ngay waxee. mais sëñ bi ama neex nañ toog mu toog maa moom ñu wax maa ngi dégg mu naan ay naa jéem a mel ni moom man ama neex bu ma naree mel ni moom bàyyi làmb ama neex lu mu def si làmb loolu dem di bale ji xaalis. man su ma dee mel damay mel ni Balla Gaye wala mu mel ni Modou Lo wala Ama Baldé comprendre nga wala Eumeu Sène wala Bombardier waaye mel ni ama neex xanaa kon ma yées wala ma bon ama neex mi dëkk ci Tëngéej papa yaa dañu koy ñaanal yàlla yaare xaare ko àjjana feebar mënuñu see taxaw ba mu génn àdduna ah nga naa ay mel ni xanaa kon ma mel ni ma ma mel ne ku ma ma mel ma mel comme ma ma gën a bon. ah ama neexee ngi ne le nekk ak ay góor jigéen fële ñu si def ay anniversaire mu koy muy kortante ak ñoom nekk ay góor jigéen ay toot yee fii ku nekk mbër ak mbër ak ñu jàppale mbër ak ñaana dëkk ndax kuy pare combat dañ lay jàppale waaye bu ñu la dee jàppale nga jël ko set dignité moo geet bu dee maye bu la tàllalee jox la sëñ bi mooy ëpp taalibe waaye kuy jël xaaj di la ko sànni yow nga nekk say ngan di nit rek di poser cent trente kilos say gandal sa gënaan ngay man la sum waay waay yow kii moo ko rusuloon taril ko saar bu bu waay yow kii nañu may jàmm sa diggante ak ama neex lan la dafa mel ni dafa am règlement du neex taxaw nañ man ak moom mu maa ko fekk mu taxaw mu saaga woon ma stade ma ne ko du ma wax ak yow fii ama neex ñëw teemoo yi boo bëggee moom lay témoin ma dagg seenu xaalisam ubbi oto mu génn stade lu ngeen jote woon ba Ronaldo laa doon bëreel mu saaga ma ma geesu gis ko mbëbës man ku ma tooñ doo jaar mbëbës mu jaar mbëbës ma dagg seenu xaalisam ubbi otoom barki maam Cheikh Ibrahima Fall bu amul yàlla naa gën a torox sama doomu yaay am neex ñu ngi ko tëj ci kër deux heures une ba ay cinq heures xam na la mbedd mi meloon comme Balla Gaye bu bëree ba daan ni muy mel. man lañu woo ne ma sa boo yaa ngi ni song am neex moo fëgala ñoo àndoon ak Youssou Ndour nañ laaj fëgala nañ laaj fëgala maa ngi leen fekk si kaw ñu nekk ak ay waaye jarul wax sax. ndax am na yoo xam ne bu mu lii ma bëgg wax su ma ko waxee moom ay supporters weddi ko barki maam Cheikh Ibrahima Fall ci appartement laa leen fekk ñu pëgg ma pëgg ñu ubbil ma ma fekk loo xam ne noonu li ma leen fekkee mbër jomb na mbër di ko def barki maam Cheikh Ibrahima Fall lamp su fekkee li ma leen fekkee jom fekkul mbër jombul mbër di ko def am ama neex yàlla bu ma gisanteeg Seydina Muhammad ci weeru gàmmu lañ jógee saa ngi déglu fii ku nekk am nga lu bon kon boo naan ay ànd ak lu bon moom mu gën a moom mi ma fekk mu tëju. te wur na Seydina Muhammad boo ma doon fay du ma wax li ma ko fekk ma doon def yee jour boobu dafa saraxu di ma dóor ay Yuno ma ne ko bàyyi ma ak Yuno États-Unis quatre mois nga fa def ñëw di ma làq Amérique noppi da ngaa tiit na góorgóorlu foofu bu fa manee baroo am. mais boobu yow lan nga fa doon def lan nga fa doon def ba fekk ko foofu. sama koñ la ñëw ñu jàppante. man ak moom ñu exemple dañoo jàppante foofu lundi lañ jàppante mardi muy ñëw ànd ak fëgal ak beneen waay léegi sama booyu yi gis ko teg na daa xeex wala xamoo li ma la wax eh, maa ngi moom ñoo jote lundi jote bu metti mu dem mardi nag mu ñëw ànd ak fëgal ak yeneen bërëda man ma dem entraînement nag sam booy gis ko teg na daa xeex si waat sam booy jekki-jekki indi ay biteel ay yet ay lu nekk lañ ko indil foofu mujj gi man lañ woo maa ñëw. ok la daw ci la daw dugg ci biir kër gi ci kër gi ñu tëj man maa ñëw. ne booy lan la ñu ne ma dafay ñëw pour xeex si ma ne leen non bu fekkee day xeex dinaa ko laaj si laa ñu ne ko yow xeexal la fi indi wala xuloo barke Seydina Mouhamad mun na ma professionnel laa man du ma xeex. lan moom fii indi mu a ma damaa waaye wax ma wax si li muy dox si foofu ma a ko nañ dem kane foofu maa ko naan tibb si gerte gi jël si banaana yi tëmbal si booy nekkoon si suuf barki maam Cheikh a Fall lamp laa la wax. lan mënoon nga jël seenu jàmm yow tamit. non non dañ doon xeex yëfu bandi la rek daf ma doon jaay yëfu moom ko ko du ma bandi doo bandi ma jox amoon jawante paaka sax damay bokk barki maam seera ma faal koo xamul xamoo ko nag. kon daal su ma déggee wax ji mooy sa diggante ak Ama Neex du du du affaire moo gi dafa dafa jiitu loolu. non maanaam man fàtte woon naa loolu sax waaye dafa nekk doon def affaire bale xaalis yooyu ñu sentir suñu bopp wax ay bu ne dee ànd moom yéen journaliste moom journaliste mu ngi ne ko ba xam da ngaa mës a am problème kara mënu ko déedéet kon moom ñu bon ñi may àndal nu mu leen gisee ak kañ la leen xam loolu question la. ba ko waa waa journaliste bi aayul kooku na jàngaat liggéey <laughs> seen waa jooju eh, eh, kooku si balekat bi la bokk kooku daa bale ji woon seen patron na ko dàq <laughs> kooku kooku kooku si markat yi la bokk daa mari woon bi <laughs> yow ngeen génn lii yow moom da am mari woon su ñu mari woon nga bokk bàyyi leen mari eh, maa ngi koy nuyu nag ku baax la waaw ñun moom ay nit yi jàmm lañ dañ koy bégee ah. ndax ñun ak yéen ñoo dëkk daal ñu ñaan Sénégal jàmm waa am na ñoo xam góor góorgóorlu xam nga na moom foofu moo ëpp moo gën doole wërsëg yemul nag. waaye moom bu ko même moo góor bu ko deful sax mën naa amal jàmm. xam nga gët am na ñu ma ko gis muy dimbale ñooñu mu leen dimbale yàlla na leen yàlla yokk si li leen dimbale ñu góorgóorlu si. waaye ñun boo gisee ñiy wax li muy sànni ci xaalis yi ak li muy wax ci wax ju bon affaire yoonu waaye. ginnaaw loolu amuñu ak moom problème su ma déggee wax ji daal maanaam ni muy mayee moo la neexul. mais mën na koy joxe. ok joxe ndax fii ku mu neex ngay maye jël caméra waaye bu mu sànni bu sànni. mais kon yow fi mu toll nii su ma bu la tàllaloon nga jël. waaye sëñ bi yow bàyyil bu la tàllaloon ñun sëñ bi fëkk yóbbuwuñu barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp fukk yóbbuwuñu. am na seen beneen mbër tamit boo xamante ne jox na ko muy Alaaji Mbay kaw may na ko 5 millions. Alaaji Mbay ba ma xëyee dugalal naa ko vocal maa ngi moom nañuy waxtaan ma ne ko yow loo am war nga kaa am ndax ku baax nga. may gërëm sama xarit suma doomu ndey Boucher. këjëb waaw ku gëm boppam la kooku mënta doon lu dul doomu géejawaay waaw kooku mënut doon lu dul doomu géejawaay yi. mais Boucher moo moo moo moo moo moo gën doon nañoo ànd de ñoom tamit. waaye bu doon ànd lan la ko moo gën def mu bàyyi ko Boucher doomu géejawaay la kenn du ko yab géejawaay la dëkk kenn du ko yab ku ko nar a jàpp nga bopp koo xam naa ko bañkat la fi teg foofu la sëñ bi yow yow moo gën yaa ko ëpp doole yaa ko gën a féete xale li mu am war nga kaa am mu gën na li mu am yàlla na gën a yokku loolu mu jëndal yaayam ñu ngi ko siy félicité ndax nit tamit bu nee baax na nañ wax ba xam boo ko yaa ko wax yee mooy loolu tey sama waa ji kontaan naa ci yow xam nga am loo xamante ni bu ko nit ñi bëggee bu leen ko defawul ak ñun du ñu am jàmm ndax ki la sant ki la li may waxe ki la abal bëtam fu ko neex ngay xool ba tax na lii nga xamante ni ñooy ñooy seetaan Wassare Lamb di ko bëgg di gis lii ngeen ñu doon laaj dem nañ leen defal leen ko ci nga xamante ni mooy Kara Dollé léegi nu ñuy def dañuy ànd wàcc dem entraîné wala. waaw dañuy wàcc ma ñaar may ñaan Sénégal ñaan ñi nga xam ne ñoo ma yilif ñu jàppale ma ndax tamit lamb ji gis ngeen ni mu mel te ñun tamit dañoo soxla ku ñu jàppale waxuñu ku ñu may xaalis ku ñu teg ci kot lañ bëgg ñun ku ñu teg ci code eh, ku ñu teg ci code lañ bëgg ñu ngi ñaan senegal jaamu Baye di gërëm borom Daaru Noreyni di gërëm Cheikh Baye Fall Diouf sëñ maa ngi ñaanal senegal ñëpp ñëpp ñëpp di ñaanal met Amaro Séeri yàlla defal ko jaamu barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp kontaan naa gërëm naa la bu wér maa ngi ñaanal kodd suma jigéen koddu Njaay yaay mama yaay mam booy ak Ami Kole ak Ahmed ak Fallou yàlla def jàmm si darajaay Seydina Maam sëñ bi yàlla na yàlla def Sénégal jàmm képp ku fi indi ay yàlla toog seen kër ñaanal Père Mbaye Gueye tànn maa ngi ñaanal Sénégal ñëpp jàmm di ñaanal suma papa Abdoulaye Ndiaye waaw kontaan naa daal. sama xarit bi nga xamante ne day anniversaire Adama kookoy borom géej waaye nag. borom saabu yu baax ndeysaan kooku kooku borom. borom saabu yu baax yi saabu moo tax ndeysaan tey baax wax ko wax wax da koy waxaale sax mu jox ñu saabu yi mu jox ñu saabu yi nan la tudd nga ne waaw Adama Sall ñu ngi lay wax ah, happy birthday to yu nga dund lu bëree bëri ñu ngi lay ñaanal nga dund ba mel ne yeneen yàlla xudar ngay dund di dund rek barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp boo déggee lii Adama nga xam ne sa xarit sa doomu ndey sa mbokku taalibe Kara moo lay ñaanal lii Adama xanaa kon man maa bëgg nga dund ndax ku la ñaanal ba nga mel na yeneen yàlla xudar mooy xanaa nga dund ba ne nii dundal waaye barki man Seeraama Fall ñu wax ne Sénégal lamb yi fi taxaw neex na waa ñu ñaanal mbër yëpp jaamu ñu koy ñaanal Balla Gaye Modou Lo Ama lagros Lac de Guiers bu Daaru képp ku ñuy kuy sunu adversaire di ko ñaanal mbukki euh, am neex di ko ñaanal guy gi di ko ñaanal képp kuy mbër kuy takk ngemb ñu ngi lay ñaanal jàmm si barke Seydina moom di ka ñaanal suma grand suma xarit Tapha Tine da jël téléphone am chaque jour di ma woo. ah ñëpp daf ma bëggal boppam. Tapha day jël téléphone am daf may woo direct kooku moo nekk mbër mu may woo mbër moo xam ne champion nga di lekk ay million di jël sa téléphone kar di ma woo Tapha rek la. Balla Gaye dinañ dugalante vocal naa ko dugalal vocal mu tontu ma ma mbalak ko mu mbalak waaye Tapha Tine jël téléphone ne ma kar woo ma maa ngi ñaanal sëñ bi di ñaanal waa Mbëbës yàlla defal leen jàmm ndax ay jàmbaar rek a fa nekk Sénégal nañ dimbalante bàyyi xawante sutura bi bàyyi saagante ndey lu ñaaw lañuy ñuy def ñu naan kilifa aada yeeg kilifa diine yeeg ñëpp ñu bàyyi lëfalmaan yi nekk si dëkk bi daa bëri ay lëfalmaan góor day liggéey jigéen toggi mbaxal Baye Fall comme ni mu la ko waxee chaque jour subhaana rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Touba ñi may saaga ci kii bi nag nu mu tuddati ñi may saaga ci ci commentaire yi jotewu ma ak ñoom dara man kuy ñaaw làmmiñ daa ko ma saaga man ku ma saaga mille saaga bu ma la saaga benn nga bàyyi saaga bàyyi leen maa saaga. waaye saaga nga ne. barki Serigne Touba bu ma xamoon fi ñuy fayoo saaga damay fayu lan laa jotee ak ñoom bañ may saaga. ñi commenté billaahi képp koo xam ne nii liir nga suma commentaire nga ko coupé de sëñ ñaa ngay coupé de képp ku liir suma commentaire bu la naqaree bul xool. waaye barki maam Cheikh Ibrahima Fall ku liir sama commentaire saaga ma dinaa an tëmbal ku mbayaasin ira barada du ah, ah. déet lan i ñaas it ñoppet nag fa laa yem des mooy loolu gis ngeen ni lay demee ci Wassare Lamb kii daal mooy noonu kenn xamul koo xamul loo koy def ak nem la defe tax waaye nag di leen wax ne di leen daje ba beneen yoon ah ñu xoolalee yeneen mbër yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ah ak li ngeen xamante ni moom ngeen bëgg di leen ñaanal gudd fan wér gu yaram Adama gis nga noonu lay demee kontaan naa ci yow bu baax a baax kontaan naa ci yow bu baax a baax di nuyu Fallou Cissé démb moo doon takk ak Mounas di leen ñaanal gudd fan wér gu di leen wax ne yéen a xamul ngeen bëgg seen sëy yàlla neen ko yàlla defal ah bàyyi leen bi nga dund ba yow Mounas ma dama laa bëgg suñ jabar ju bees yi temps yi moom yow lañ diw bëgg Adama kontaan naa di dig daje ba beneen yoon incha allah jaajëf